leen dalal jàmm mbokk yi ngeen di woy di ci ànd ak suñuy programme la 7TV télé bi ñu niru ba noppi duñu dajale ah télé juróom-ñaar bu ko defee ñu woyal matinal bi ànd ceeg Kajoor Cissé Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha gloire à Dieu sant yàlla bu baax a baax bi ñu mënee tey toogaat fii ànd ak askan wi di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo nuy seetaan ak Pape Malick man fi nekkal. dalal jàmm Kajoor euh, bon leen ak jàmm la revue web Kajoor dañ koy dam démarrer ak agence de la presse sénégalaise ñoom nag ñu ngi dikkaat ci sortie bi nga xamante ni Aminata Touré daal dina koy def. effectivement bëri na ay ponk yoo xam ne jukki na ko démb ba muy jàkkaarloo way taskati xibaar yi waaye benn ponk la ñu ci euh, jukki daal di koy fësal te mu ñeel nag euh, teewaayu ki nga xam ne moom mooy euh, njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay ci li nga xam ne moom mooy conseil supérieur de la magistrature muy kuréel bi nga xam ne moom mooy dajale àttekat yi moom Mimi ture nag dafa am li nga xam ne moom la fësal ci gis-gisam ci lu ñeel wàll wi ndax débat la moom nag xam xamle mooy euh, kii di njiitu réew mi mën naa des ci li nga xam ne moom mooy conseil bi waaye la mu bëgg mooy mu bañ a dugal benn yoon loxoom si li nga xam ne moom mooy gérer juge yi wala euh, li nga xam ñi nga xam ne ñoom ñooy procureur yi Mimi Touré nag la mu gëm mooy nekkul njiitu réew mi moom moo war a gérer carrière magistrat yi waaye euh, dañoo war a amal ab comité interne comité boo xam ne seen biir lay nekk ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat yi ñu tabb saa yu ñu bëggee tàbb aussi ñu xool ki nga xam ne méngoo na ak euh, ki ñu war a tabb ci lépp loo xam ne moom mooy li war ñu daal di koy saytu laata ñu koy daal di tabb loolu la wax nag su ko defee moom njiitu réew mi Euh, dafay toog foofu faaw nag nee na mu toog ci boobu lépp kuréel ndax nag moom dafay am rôle daanaka saytu xool ba xam ndax anam ya ñuy doxalee mu ngi jaar yoon am déet loolu moom mooy gis-gisam ci teewaayu njiitu réew mi si conseil supérieur de la magistrature. Euh, Kajoor fële AIBD mu mel ni am na saisie bu bees bu ñu def ci cocaïne. Dakar Actu moom moo ko dal di fësal euh, tey jii euh, ginnaaw bam sukkandikoo nag ci ab communiqué boo xam ne division communication kuréel bi yor wàllu jokkalante gi si douane bi. moom moo ko daal di euh, fësal ñu di ñu xamle nag ne dimanche bi weesu la yemoo ko euh, fukk ak euh, ñeenti fan ci weeru juillet ba booru 23 heures ca la ñu teg loxo lu toll ci fanweer ak juróom-benni plaquettu euh, cocaïne di xeetu sinébar euh, bu bon boo xam ne euh, ba ñu nattee kilo yi mu ngi toll woon ci ñeent fukk ak lu teg kilogramme cocaïne nee nañu nag xayma gi ci wàllu koppar bis bu nu ko jaayoon ba noppi daañ ci jëlee lu toll ci trois 3 milliards 200 millions ci sunu koppar loole nag nekk euh, loo xam ne ñu ngi ko euh, dajale woon ci ñaari valise yoo xam ne euh, benn doomu France benn soxna soo xam ne nationalité française la amoon moom moo ko da yeboon ci ñaari valise yi doon jóge fii aéroport aéroport Blaise Diagne doon wutali Europe ginnaaw ba ko France saytoo gis ne cocaïne la laboratoire national d'analyse et de drogue bu police scientifique et technique moom moo ko dal di firndeel ca noonu nag la ñu ko dal di euh, tegee loxo enquête bi nag moom mi ngi wéy mu nekk rek ñaareeli teg loxo bi ñu teg loxo drogue bu ni mel ca ay AIBD ginnaaw bu bu 8 juillet bi nga xam ne jotoon nañu teg loxo itam toll ci ñaar fukk ci ay kilogramme cocaïne. dëkk Sadio Mané nag ab tragédie moo fa daal di am. Pulse Sénégal moom moo ñu ko dal di yéegee ab euh, xale bu góor bu ay am ay atam tollu ci fukk ak benn moom moo daldi ñàkk bakkanam ci hémorragie cérébrale maanaam euh, voilà ku ñu dóor bopp bi toj ci biir mu nàcc ci biir génnul ba mu mujj euh, ñàkk bakkanam nee nañu nag ñii nee nañu mhm. daanaka pap waajuram góor moom moo ko dóor ba mu jaaree fa décédé ndax nee nañu dafa way juróomu góor daanaka cordonnier la euh, moom nag li nga xam ne moom mooy saagu outiyam moom la ko xaañ si bopp léegi euh, nee nañu nag loolu moom moo provoqué euh, hémorragie cérébrale bi ñenn ñi nag nee nañu simple accident la boo xam ne ba léegi mënuñu wax circonstance yi lan la euh, mbir yi nag mu ngi amee ca tund wa ñu duppee euh, Kindakam bokk ci commune bu Bambali foofee euh, Sadio Mané fekkee baax pour le moment ki nga xam ne moom mooy papay xale bi ay atam toll ci vingt-neuf ans moom ñu ngi ko teg loxo jamono ji ca brigade de gendarmerie bu Sédhiou kooru xale bi nag mu ngi nekk ci morgue centre hospitalier régional bu Amadou Tidiane Ba fi nga xam ne foofee daanaka. Mhm. la ñàkkee bàkkanam. arrêté ci lu toll ci trois cent personnes euh, ci lu ñeel crime organisé ci Afrique sowu-jant. foofu lañ koy ndarkeppe ak Africa News mi ñu xamle euh, lu ni mel loolu nag si cadre opération boo xam ne ci àddina wërngël képp lañu ko euh, def doon fexe rek ba ñi nga xam ne ñoom ñooy lii di groupe. criminel organisé yi euh, nekk ci Afrique sow jant euh, ñu daal di leen euh, daal leen tey tey yëngu fépp ci si àddina bi ñu daal di leen teg loxo ca noonu nag lañu ñu daal di teg loxo lu toll ci ñetti téeméer ci ay nit yoo xam ne. Mhm. ci ñaawteef yooyu la ñu nekkoon lu toll ci ñetti million de dollars ñu daal di koy bloqué waaye lu toll ci sept cent compte banque compte bancaire ay nit. Mhm. ñu daal di koy euh, bloqué loolee la Interpol daal di fësal ci communiqué mardi bi ñu weesu opération bi mu ngi tudd jàkkal 3 euh, ñoom nag nee nañu ñu ngi ko déroulé la ko dalee fukki fan ci weeru avril jàpp ñetti fan ci juillet bi ñu weesu euh, ci lu toll ci ñaar fukk ak benn réew. ci àddina wërngël képp la ñu doon viser rek mooy xeex li nga xam ne moom mooy luubal xaalis fraude financière yi euh, wala en ligne ak euh, li nga xam ne mooy réseau maanaam euh, bëri na lu lu mel ni faux billets yi nga xam ne mu ngi circuler wala ñii di arnaquer nit yi ci réseaux sociaux yi fii ci Afrique sow jant ñoom la ñu daal di jógal campagne mhm. daal di ci jàpp lu toll ci trois cent personnes ñi nga xam ne nag jàpp nañ leen réseau yooyu noonu bu ci gënoon mag moom mooy Euh, groupe Black Axe ñoom euh, nee nañu réseau criminel la boo xam ne moom moo gën a important ci Afrique euh, sow jant ñoom daanaka mujj nañ leen itam daal di teg loxo ñoom ñun yëngu ci wàllu cyber fraude maanaam lépp loo xam ne njuuj njaaj la di ko jaarale ci xaral yu yees yi ñoo ngi ci yëngu di yëngu itam ci njaayum nit waaye itam njaayum drogue boo xam ne mu ngi ne xuus ci réew mi rawatina ci Afrique sow jànt ak ay crime yoo xam ne itam dañ koy amal yu yu metti ci euh, Afrique waaye itam ci monde bi yëpp ñoom lañ daal di teg loxo euh, Argentine itam euh, jàpp nañ fa ay nit di fàttali rek ne Interpol daanaka mi ngi dajale lu toll ci cent quatre vingt réew yoo xam ne ñoom dañ ci bokk lu daaw rek la ñu doon fête li nga xam ne moom mooy cent ans yoo xam ne existé nañ ko Euh, ñuy jàppale nag police Euh, yoo xam ne ñoom ñoo bokk ci réew yi bokk ci mbootaay bi euh, ñu leen jàppale ci lépp loo xam ne moom moo ñeel xeexum euh, ñii di defkatu ñaawteef yi moo xam fi ñu ko mën di ko jaarale waaye itam ñii di yëngu ci wàllu terrorisme ak ñi nekk ci njaayum drogue bi ak phobie yi ak yu waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay xale yi wala di leen di leen liggéeyloo ak yu ni mel di leen defloo yenn ñaawteef yi ñu ci jëlee xaalis ñu duppee Euh, pédopornographie euh, waaye itam euh, li nga xam ne moom mooy cybercriminalité ak criminalité organisée loolee mhm. la Interpol di xeex ci àddina wërngël këpp jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal bu baax a baax xibaar yi am solo encore une nouvelle saisie fële ca AIBD mel ni mbir mi ba léegi arrêté gul malgré saisie yu bëree ñu defoon mu nekkoon alerte waaye mu mel ni daal Euh, AIBD daal mbir mi fa lay jaar. waaw fa la fa foofu yi ñuy gis moom la ñuy jaar. xam naa ne yi jaar ci suuf yi peut-être mooy gën a mooy mooy gën a kii sax mais comme foofu lu fa jaar mu mu mu feeñ. parce que dañu renforcer boo xoolee dispositif bi. dañ ko mhm. renforcer euh, les moyens techniques aussi vraiment. Euh, gouvernement bi fi mujjee aussi dafa dafa dafa def ci def jéego bu am solo parce que jën jën euh, yeesal nañu bu baax a baax en tout cas xarañteef ci ci wàll wi euh, rawatina nag laboratoire boo xam ne itam moom moo nekk fii nga xam ne ñoom bu ñu desalee cas de drogue mu ngi dem fa mu confirmer ko donc il y a tout un travail qui se fait mhm. avec beaucoup de de moyens qui ont été mobilisés pour loolu et ça donne les fruits maintenant comme ni ñu koy waxee boobu ba léegi lan moo tax ba moment bi la ñuy toog muy fës di feeñ Euh, en tout cas euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire en tout cas à force d'en parler au moins dina dissuader ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk di continuer parce que il faut qu'ils comprennent que mm -hmm. plus passer et que à l'aéroport li leen di xaar mu ngi foofu les mhm. douaniers sont euh, les attendent de pied ferme foofu ku fa euh, indi wala ku fa bëgg a jëlee loo xam ne du yoon aussi di nga xam lu lay xaar foofu ba trafic yi moom bon je sais pas je pas xam nga lan mooy expliquer le fait que bon ces derniers temps ñu gis euh, ay trafic yu bëre boo habituellement si voie maritime lañ doon jaar euh, jaarale nag euh, bon cocaïne wala ba drogue bu mënti doon aéroport bon pour man loolu ku ko def moom ba pare épisode bon gis nañ paquet yi nga xamante ni moom la ñu débusqué mm-hmm. bon douane sénégalaise daal bon ñu ngi def seen liggéey et puis bon ñu continuer di travailler dans ce sens là ba nga xamante ne euh, voilà bu ku jaay aéroport aussi dinañ la mën a dinañ la mën a identifier si euh, si wàllu drogue bu bu mu mënti doon quoi pour boobu mhm. lu am solo la. Mhm. Euh, que ba dafay wane rek seen ñu ngi def seen liggéey. Mhm. que peut ñu ñu jàppee noonu la am ñoo xamante ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi rëcci. et puis je pense que boo am na dëkk Afrique yoo xamante ne suñ ko fa defoon boo day comme lettre à la poste quoi. mais pour man bon c'est important que ñoom ñu def liggéey boobu ba nga xamante ne. Mhm. Euh, voilà plus de moyens dama jox leen plus de moyens. Euh, mu ñu moyen bu mënti doon ñu bañ ko xeeb quoi jox leen de moyens parce que yii nii que soit mu nekk ñu ñuy dugal wala ñuy génne c'est pas bien pour l'économie pour l'économie du pays. Mhm. donc donc c'est important quoi. am na solo alors ginnaaw ñetti weer yi nga xamante ni euh, régime bi def nañ ko. il euh, y a eu beaucoup de réactions par rapport au bilan des 100 jours euh, surtout ak li nga xamante ni moo di la sortie du président euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay gis nañ ni Aminata Touré itam daal dinay génn la mu àddu ci ay kàddu ci conférence de presse bi mu def bari na hmm, wax na ci bilan wu 100 jours yi Euh, nee na président Macky Sall dafa war a démissionner APR interpellé na aussi Emmanuel Macron ni que euh, Macky waratul liggéey ak moom euh, naka ngeen gisee sorti bi nga xamante ni Aminata Touré dina koy def. bon peut-être que pas mal yi na signal mais euh, elle est dans son rôle ah. est dafa bokk Diomaye coalition Diomaye président bu ñuy génnee xarab 100 jours moom elle a elle a elle a mis le doigt. Mhm. sur ay réalisation wala ay faits yoo xam ne. Mhm. Euh, ci cent jours yi am na te loolu kenn mënu ko ko dénneel. après mhm. elle a fait aussi dans la politique des attaques et autres loolu yëpp c'est de bonne guerre moom mi mi ko wax aussi elle prend tout tout tout tout toutes ses responsabilités parce que moo nekkoon ak ñoom tey. démb tey moo nekkul ak ñoom aussi. li mu leen wax moom moo xam fu mu ko teg. de toute façon. euh, que que que que tout que tout reste dans le fair play et puis que mu sain quoi que les les les, les le, le, le, mhm. ñu ñu ñuy wax lu constructif. loo xam ne euh, waaw nga far ak nga bañ a far mais au moins nga wax loo xam ne boo ko waxee kenn du la jéppi. Mhm. am na solo alors dañu enchaîner rapidement ak actualité politique ak économie ànd ceeg Pape Malick bu ko defee ponk boobu ñu gën koo yaatal léegi léegi.